كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokki téléspectateur téléspectateur yi si nga xam ni ñu ngi suivre Kawar 24 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàcce seen wàccuwaay tabarakallahu di leen yëgal programme bi nga xam ni daara Oustaz Alioune Sall moo koy amal war koo def incha allah dem six mai yemook dimanche bii di ñëw ñu ci woon yëpp rek muy conférence boo xamante ni incha allah mise à place bi ñu ko jàpp euh, quatorze heures et demi maanaam ku julli tisbaar ba noppi mën ngaa dem ca tente ba incha allah su ko defee trois heures pile suñu maire yi danañ tàmbali tari ndax daara ji dafa am benn mbooloo moo xam ni ay meer lañu di suñuy yaay di suñuy maam ñoom ñi nga xam ni dañoo am daara joo xam ni dafa tudd dabaatal danañu ca incha allahu euh, tari alquranul karim danañ ca tari xadis danañ ca tari fiqh lii ñaar rek ñëpp gaaw a génn ñëw sa ba ñu koy defee place publique bu Kayaar su ko def muy ancien garage su ko defee yéen ñëpp rek ngeen gaaw a ñëw sa tànt ba ku yeex doo am place incha allah képp koo xamante ni bëgg nga déglu maire yi tari euh, da ngay gaaw a ñëw waaye boo bàyyee ba 17 heures mën naa am boo ñëwee da ngay tardé bi nga fekk maire yi moom lañ waroon tari yëpp tari nañ ko muy conférence boo xam ne nag ki ñu ko war a defal conférencier bi mooy Oustaz Alioune Sall ngeen xam ko Sall Lamtooro buuru Guédé di conférencier bu mag di pédagogue di jàngalekat moom moo war a ñëw defal ñu waxtaan wi ñu si woon ñëpp rek mboolem fu jullit nekk moo xam ci Kayaar la ci commune bi moo xam ci tundu Jandeer la wala ñu ne Sénégal mboolem fu jullit nekk di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo sa bis nga ñëw incha allah teew teewal moom la soxla teew te teewal ñu ñaan yàlla lépp loo xamante ni amee nañ ko sa conférence ba dañ koy def si daara ji ndax xam ngeen ni daara Oustaz Alioune Sall dafa nekk ci ay travaux mu nekk daara ji ñu ngi koy tabax moo tax dañu bëgg rek allah lu ñu amee ci conférence ba mën koo def ci daara Oustaz Alioune Sall ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di sant euh, waa site bi. muy kayaru 24 TV di len ñaanal yalla nek télé bu maga maga mag dem ba am sax yeneenu télé mu ngi lu seen liggéey alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum wa rahmatullah wa sibillahi min asseytaani rajim bismillahirrahmanirrahim ma dellu waxati alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين جري جفيال جري جفيال ليو دينا نخيري سي لباح لي جري جفيال ليو دينا نخيري سي يون جفوي ماي سانت نك دي جري بباح محمد الله نمكا di ko ñaanal yàlla jàmm te jàmm ji yàlla na ko bokk daara ji nga xam ne moom la ñu ñëw tey di ko waxtaane di soññaat sama mbokki jullit yi di soññ sama mbokki jullit yi nga xam ne dana bokk pos-pos bokk yéene bokk diine muy mbooleem pindi jandoor mbooleem adduna bi yépp nag bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ndaw ñoo ngi leen di soññ si daara ji daara ji xam ni dañu ko ubbi Kayaar tuddee ko Oustaz Alioune Sall ñu daara internat yoo xam ni dara taxu kaa jóg lu may jàngale xam-xam ak jàngale diine ndax kat dañu wax ne yàlla ka la jaamu da koy xam te ñun kat daanaka xaaj yëpp xamuñu woon fu ñu teg suñu tànk te léegi yàlla mu ngi koo xam ni mu ngi ñuy xamal li nga xam li nga xam ni noonu la ñu war a mën yàlla daara jooju nak moom la ñu war def conférence dimanche bi di ñëw ñu nga ñoo bi jullit góor ak jigen mag ak ndaw li dalé aduna bi yépp ba tundi jandeer tundi jandeer gépp liko dalé ba nuutoo ba kër ngir ba daan ci kaar ñoo ngi ñaan yalla mbooleem ko ni ci o yalla may la katam ak yene ak pos-pos boo mën a dimanche boo mën a ñëwee dimanche te bu boobaa ñun ñi nga xam ne ñun ngeen di fekk si yàlla nu yàlla dolli jàmm may ñu wër ak kàttan ban mën leen a teeru teral leen ndax kat wax dëgg yàlla ñu day caaxaanewuñu lii ñu day caaxaanewuñ ko wax dëgg yàlla ñun ñu si ne te bépp soxna soo xam ne yaa ngi fi te ñëw ñëwagoo su la neexee mën ngaa ñëw si daara ji ndax daara ji kat daara yërmande la daara yërmande la daaral jo xam lu kenn te lepp lo xam ne rek tok nañ ko bobu mu dolle sant yalla bu baax ndax adduna bi kat gisatuma fi dara lu jaamu yalla jaamu yalla rek la nit wara am pas-pasam du japp ci bu dëgër ndax ñun kat ah aduna woru de ñew leen ci daara bi jang fi mi ngeen di jaamoo yalla jang fi xam-xam jël seeni ñaq dugal fi ba bu ëllëgee bu daara bi àggee sëb sëb sax bu say jang du am ci tuyaaba ji di jeex jërëgéen jëf sama mbokki jullit jox seen wàccuwaay comme sukay ni mu ko waxee rek waaw su sukay faal daanaka wax na wax ji waaw suñu conférence bi le vingt six mai dem muy dimanche bii di ñëw ñu ngi sàkku ñëpp teewaayu ñëpp waaw ñu ngi sàkku teewaayu ñëpp waaw ndaxte ñun diine lislaam rek moo ñor waaw diine lislaam moo ñor te mooy dëgg waaw mooy dëgg kon nag ñu ngi ñaan yàlla ya subhanahu wa taala mu yóbbu ya ci ci jam ak salam ñu ag ci ci jam wa te ñu ñaan ñëpp dal ñu teew te teel a ñu wa ku ñew dal do heures pile na la fekk fi wa do heures pile na la fekk fi ni wa ñu ngi ñaan yalla nak suñu borom yalla yóbbu ñu ci ci jam ak salam ñu teewee ko ñun ñëpp commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim àggale ko ci alhamdulillahir rabbil alamin li doon ñaan yalla suñu borom yalla defal ñu ko ci kattalam ak mbaxam wa ñu ngi sant ñepp nak di jëral nah, nah, ñepp di wo ñepp nak na ñepp ñew na ñepp teewee suñu conférence bi wa suñu conférence bi nak ko ñepp ñew teewee wa ñu ngi wo ñepp mbokk jëndeer kon dal su kay nim ko waxé rek bayyi ñu kel na ñepp teew wa yalla ñu ci yalla yobbu ci jamm ak salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يعلمون قالوا إنا أرسلنا